bismillahi irrahmani irrahim wasallallahu ala sayidina wa alihi wa sahbihi wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo gin darsu ñaareel wi bi ñu wax naan al axdariyu ne wa yaxrumu dana xaraam alayhi ci mukallaf alkazib fen wala xëybatu ak jëw wan namimatu ak rambaaj fen dafa xaraam ci mukallaf lam may fen fen mooy wax lu dul dëgg nit saa yu waxee lu dul dëgg tey ko rek fen la teg si am na bàkkaar su waxee li nga xamante ni lu dul dëgg tey ko loolu fen la waaye amul si bàkkaar ndaxte tey ko dina wala xëybatu ak jëw jëw moom mooy lan may wax si gannaaw nit ki lu ko neexul saa yu waxee ci gannaaw nit ki lu ko neexul donte sax loolu noonu dëgg la loolu fen la waaye nag loolu mooy jëw waaye nag jëw dafa am juróom benn xaaj yoo xamante ni wax nañ moom moo dagan benn sax mën nañoo ne juróom-ñaar la tënk ko ci benn bayti mu ne wastaxiz wastafti waxazir waarif bidatan fisqal mujahiri lam wastaxiz wastafti waxazir waarif bidatan fisqal mujahiri mu ne sa lam jàmmatal tooñ da la tooñ nga dem di ko jàmmat maanaam dañ la tooñ nga wax keneen koo xamante ni mën na jàppale ci loolu loolu dagan na wastaxiis nee na nga xeetaliku maanaam lañ la not nga bëgg xeetaliku dem ci ki nga xamante ni ki la not moom kooku moom moo ko fu doolee nga dem ci kooku noonu mu xeetali la loolu dara nekku si parce que yow tolloo moom doole te am na keneen ku tolloo ak moom doole wala kooku doole nga dem di clamer kooku noonu dagan na wastafti mooy laajteel da nga bëgg a liggéey ak nit te xamoo jikkoom bam jeex nga dem di laajte kii nan la mel balaa ngaa dugg si moom am na droit def loolu loolu tamit dagan na nee na waxazir nee eh, na nga moytandiku moytandiku mooy nga am nit boo xamante ni bëgg na jëf jëflante kenn nga dem ni ko kii nii man ay jikkoom doyuma su ma sañoon daal na bañ a liggéey moom ndax ay jikkoom ay jikkoom doyuma loolu dagan la nee na waa ref na xamle xamle boobu noonu nag xamle moom mooy nit ki dafa am lu muy def moo xam ci diine wala ci diine nga dem maanaam lu muy def noonu lu xaraam la maam lay naxante wala muy naxante ci diine wala ci diine nga dem xam ne kii kat si naxante la nekk nga xam ne loolu noonu ngir nit ñi mën ko moytu loolu tamit dagan na moo xam ci diine wala ci diine am tamit binaatan nga xam ne binaatan na moom ci diine lay dugg maanaam nit dafay woote diine dafay woote ci wiir léegi loo xamante ni bidaa la nga xam ne bidaa la moom dafa ñëw di woote loo xamante ni waaw loolu bokkul si diine bi nga ñëw xam ne ñëpp ne kii lu muy woote nii bidaa la ñuy moytu ko ko topp loolu noonu ba tey dagan na fisqal mujaahir yi mooy kàccoor bi nga xamante ni dafay biral ay mbiram li ki kàccoor bi nga xam ne dafay naan sàngara te nëbbu ko wala muy tux nëbbu ko wala muy yàlla te nëbbu ko kooku noonu kàccoor la nga feeñal ay mbiram loolu dara nekku si wan namimatu nag ak ak rambaaj rambaaj moom mooy lan mooy gis ñaari diggante yoo xamante ni mu ngi neex amul benn problème nga fexe ba teqal leen moo xam ah, moo xam diggante ñaari xarit lañ wala diggante jëkkër ak jabar loolu daganul nee na wala kibiru ak rëy rëy moom mooy lan moom bañ dëgg te xeeb nit ñi saa yoo demee ba xam ne yow suñu la waxee dëgg rek doo nangu da nga rëy ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa ndaxte jamonoom am na benn yahud bi nga xamante ñoo ci moom ne ko yow sa nii dañuy bokkaale yàlla ndaxte ñoom dañu wax naan macha allahu wa shita te dañ naan waa wal kamba mu ne ko bi ñuy wax loolu ne ko sa sa noonu la def yonent bi mer ci loolu noonu nekk ne leen su ngeen di naan macha allahu summa shita wa rabbul kaaba loolu noonu gis nga loolu ki ko wax loolu sax bokkuñ diine mais bi kooku noonu waxee loolu rek mu xam ne loolu dëgg la mu taxaw mer aaye ñi nga xamante ne ñoo dem waatee noonu mu teg leen ci yoon bi te ndekk ki wax loolu noonu yéefir la waaye nangu na dëgg bi nga xamante ne kooku loolu la ko wax waaye nag ñun léegi soo demee ba toll fenn rek benn xale ñëw di la wax dëgg da naan kii tolloogul su ma mën a waxee dëgg te dëgg xooluñ ci xale la wala mag la suñu la waxee dëgg rek da nga war a nangu boo ko nangu rek da rey wala oj bu ak xaaw xaaw mooy lan mooy yéem sa jëf saa yi demee ba nga xam ne ñoo daal say jëf saa say jëf daal dañ si yéemu loolu da xaaw te jëf yi ngay def noonu yëpp yow dara parce yow soo jullee kàttan bi nga jullee yàlla moom moo la ko jox yàlla moo ko bu neexoon mu jël ko si yow si saa si barab bi ngay jullee moomoo ko ndox bi nga jàppee julli ba tey boobu tamit moomoo ko comme yow waroo si yemu dara saa yu demee daal saa yu demee ba xam ne daal yaa ngi jëf waaw weerul si yàlla rek jarul nga yéem say jëf ndaxte yow li nga def balaa nga def jëf jooju noonu moom wax dara war yaaw ak ngistan ngistan suñ suñ ko waxee moom may moom may ngistanu ci wàllu diine ci wa ci yàlla amaa gis ngistan ci yeneen mbir yi loolu du ngistan ngistan moom mooy lan moom may ngay def si diine wala ngay dimbale ay nit bëgg ñu gis ko maa yow da am xaalis nga xamante ni da ngay dimbale wuy ñàkk yi waaye balaa nga koy a def rek nañu teew nga joxe ñu teg seen bët loolu soo ko defee bët nit ñu waaw comme yow loo loo si bëggoon rek mooy nit ñi gis ko nit ñi gis nañ ko loolu mooy sa fay foofu noonu amoo ci yàlla parce que yow nit ñi nga bëggoon rek ñu gis ko te loolu doo ci am benn tiyaaba maa su fekkee ni yow da amaa su fekkee ne yow ay yére rafet nga yor wala ay oto nga yor di na wan ne am naa ko loolu du ngir sa ndaxte loolu jotewul ak diine dara ne la wa sumaatu ak déggatu déggatu moom mooy lan moom mooy ay ngay jaam yàlla ba pare bëgg nañu dégg la yow daal balaa ngaa neexal wala balaa nga mën a jaamu yàlla rek nga gis nañu jege la nga commencé jàng jàng yu neex wala nga commencé naafila naafila yu ñu dégg la wala bu saa yu naafila ba pare nga ñëw di wax nañu ne man de suma yaram bépp day métti ndax lu tax waaw ci ay naafila rek laa fantaloo si jubloon rek mooy ñooñu man laa dégg wal xasad ak kañaan kañaan tamit dafa xaraam kañaan mooy lan moom mooy ah, loolu nag dafa am ñetti xaaj moom bu si njëkk moom mooy am dara nga bëgg mu ñakko ko yow nga ñàkk ko loolu dafa xaraam yàlla moom may nga bëgg moom mu ñàkk ko yow nga am ko parce que boobu noonu dafa xaraam yow nga ñetteel moom mooy mi nga xamante ni moo dagan da ngay bëgg mu am loolu noonu mu yor yow tamit nga am ko loolu du añaan sax lañ ko mën tuddee ndaxte yow waa añaanee ko sax da nga li mu yor noonu da ngaa bëgg mu yor li yor yow tamit yàlla may la li mel ni lu ko may mu ne wala du ak mbañeel wala boog boog maneel warutul fadl ak gis nga ne alal xëyri ci keneen maneel ma may lan may nga gis nit ku rek bañ ko nit kenn waru ko bañ ndaxte nit tabaxu yàlla la ci biir àdduna kenn waru ko bañ nit daal lañ lañ war a bañ ci moom mooy ay jikkoom ay jikoom daal su fekkee ne ay jikko yi ñàng la daal nit war na bañ jikko yi noonu waaye nekkul jëmmi nit si boppam la ñu war a bañ nee na warutul ak xool nga ne roy ci keneen mooy xool ne xool nit yaakaar ne yaa ko gën loolu amul fen moo tax mu ne moo tax dafa dafa dafa ne ngëneel nekkul si nit ku weex ak ci ñuul nekkul ci weex ak ñuul nekkul ci arab ak ajam ngëneel daal ci fi nekk mu may kii gën a ragal yàlla kooku moom mooy koo xamante ne moom moo gën si nit ñi gën ci ñi nekkul ne xeet rek lañuy ñuy xool gën a ragal yàlla kooku moom moo gën a sinawi si yàlla bul xool ne man suma xeet moom mooy xeet bu gën a rëy ci xeeti moo tax man maa gën diw déedéet yow balaa nga mën a gën diw nga gën ko ragal yàlla foofu nga ko gënee gën du ci ay xeet walla ci ay askan nee na wal hamzu ak piis wal lamzu ak regeju piis moom mooy lan piis moom mooy wax ci mooy wax ci làmmiñ lamzu moom mooy wax ci bët yow lam piis na ni ñu koy defee moom mooy da ngay xaar ba toog ak nit ñi rek soo bëggee jëw nga nekk di waxee làmmiñ te xam na ni soo waxee làmmiñ ñi nga ñi ngay jëw noonu mun mënuñ comprendre li ngay wax waaye yow ki ngay waxtaan ki ngay waxtaanal moom mën na xam li ngay wax loolu noonu dafa xaraam ak jëw si bët nga xam ne yow soo toog ak nit ba bëgg ko jëw rek doo wax say bët ngay waxee moom du comprendre ma waaye rek ki ngay waxal moom mën na comprendre li nga ko bëgg wax nee na wala abas ak fox fox mooy lan foox foox moom mooy lan dafa am ñett foox yi nga xamante ni ñoo dagan mooy foox ci fiti maanaam ngay foox ci fiti nga xam ne soo demee ci soo demee xëy di nga mën a fiti ak foox ci fas maanaam nga xam ne di mën dawal fas saa soo ci xare ba nga xam ne xare bi jaxasoo na wala ngeen war a dawal dem nga mën nga mën a dawal sa bopp ak foox ak sa jabar loolu tamit ba tey dagan na nee naa wa soxriyatu ak reetaan reetaan mooy lan moom mooy yow da nit yow daal danga nga yor dara waaye nag nit su ñëwee ci yow soxla pour nga jàppale ko balaa nga ko doo ko jàppale teg ci ko di nga ko di nga ko wan ne ko yow li may laaj am naa ko ba pare ta doo ko si jàppale misaal mooy lan mooy nit dafa am ay problème am maanaam mën nañu wax ne nit dafaam am ay problème am ay jabaram wala lenam nekk si hôpital nga ñëw ne ko man daa am problème yoo xamante dama ko lijjante te yor ma xaalis nga ne ko léegi danga may aal dara mu wan na la ne mu wan la ne yow li nga may som bi may laaj yor naa ko ba pare teg mu wan na yor na ko yor yor na ko pare waaye nag du la ko jox loolu mooy reetaan parce que mooy yow da laa appliqué ne la li nga may laaj noonu yor naa ko teg si bañ la aal loolu moom mooy loolu may reetaan ndax su loo waxoon ne yor rek loolu du nekk reetaan waaye nag te la woon ne la li nga may laaj yor naa ko ba soog la wax ne aw ma ko wa naa ak njaalo la mooy njaalo njaalo moom mooy njaalo moom mooy sëy ak kudul sa jabar loolu moom mooy njaalo loolu moom dafa xaraam wan nazar ak xool lil ajnabiyati jëm si jaamur bu jigéen watalazazu ak bànneexu bi kalaamiha ci waxam xool jëm si bu jigéen loolu dafa xaraam jigéen feñ rek lañ maye góor feñ rek lañ maye mu xool jigéen mu may mu xool kanam bi ak ñaari tenche yi su demee sax ba nga xam ne su xoolee kanam nga ñaar tenche yi dina ko indil ay jafe-jafe soobaa dañ koy aaye xool foofu noonu nee na ak bànneex ci waxam tamit dañ ko koy aaye jigéen daal sooy wax moom waxal moom ci fayda bu jeexee nga noppi seexatoo leen dara ni nga wax fulla rek fulla bu jeexee ngeen arrêté ko soxlaatul ngeen nekk foofu noonu di yokku ci lu bokkul nee na wa akulu amwaal naasi ak lekk alal nit ñi bi xayri ci bi nafsin lu teew bakkan lekk alal nit ñi lu teew bakkan loolu ba tey dafa xaraam moom mooy nga lekk alal nit doonte xam na ko lu dafa xaraam wala sax moom su xama yoo li nga def ba ndax ndax ko lekk xaalisam boobu noonu di la ko doon loolu tamit ba tey dafa xaraam ndax da nga ko lekk da ko lekk si du teewu bakkan waa waakul ak lekk bi si faatuñ ci ràmm mooy lekk si ràmm rek lekk si moom mooy lan moo mooy nga mën a dimbale nit ci lu benn coono nga ko si laaj xaalis yow boroom grade nga te kii am nga am na ay problème ñoo wax la ay problème nga man a wax ne bàyyi leen diw wala defaral leen diw lii ñu ko nga ne waaw dinaa ko def waaye ci kaw nag dan laay gañ man mooy lii ngay gañe nga soo ko defaral loolu te yow li nga ko li nga koy defal noonu amoo si benn coono loolu léegi si ràmm la te nit ñi léegi loolu la ñuy aw diine wala ci diine wata aw diine wala ci diine wala lekk ci diine lekk ci diine moom mooy lan moom mooy nga ci ne man damay dundal ay xale wala damay tabax ay juma wala damay tabax ay daara yi jox la xaalis nga dem tabax wala nga bañ ko tabax sax def ko ci sa bopp loolu lekk si diine donte da ngaa tabax ay daara yooyu noonu sax am lu des ñooñu suñ la ko mayul amoo droit lekk si dara parce que yow ñoom joxuñ la ko pour nga lekk dañ la ko jox pour nga tabax si pour nga tabax si ay ay jàkk wala ay daara loolu moo tax ñu jox la ko wa taxiru solaati ak yéex a julli an awqaatiha ci waxtu wa julli ci waxtu ba dafa xaraam ci waxtu ba dafa ni daal war na fexe di julli ci waxtuwa wa dina walaayi dagan lahu ñaal mukallaf subaxtu faasiq faasiqin mu ànd ak kàccoor wala mujaasuhu mujaalasatuhu lu tàggan muy toog ak moom li xëy lool ci lu lor mukallaf daganul muy ànd ak kàccoor kàccoor mooy ki nga xamante ni ay mbiram mooy ki nga xamante ni dafay maan ki nga mooy ki nga dafay naan ay sàngar wa genre noonu te du ko nëbb mukallaf bi waru ànd ak moom lu may mu leer ko ni kii daal su ma waxee wala ma jëf dina ko génnee ci loolu noonu su boobaa mën ànd ak moom di ko defar nànk-nànk ma su dee ba xam ne kii moom su ma àndee sax ak moom mënu ma si dara te mën na ma wàll sooba kooku noonu du ànd ak moom di togg ak moom ci lu lor kaccoor nag mooy kooku may kooku noonu kooku noonu sax dañoo bokk réunion wala ñu bokk place bi nga xamante ni fa lañ war a liggéey wala fa lañ wala jaar ci dem wala wala ñu nekk sax wala wala ñu nekk si yoonu tukki kooku noonu su fekkee ne benn place sax moo fa des mayuñ ko sax mu toog foofu noonu lu may mu nekk koo xamante ni su jaa su toogu ci place boobu noonu mën na percé yoon boobu noonu mu den dem te loor la suba dinañ ko ko may te nit ku nekk mu ngi ci diinay xaritam nit ku nekk mu ngi ci diinay xaritam yow soo demee di xaritoo koo xamante ni kàccoor la mënoo ko defar mënoo si moom dara u yàggee dalay wàll te dañoo ne innal mar ala tasal wa absil qarinahu nit daal jaru nga koy laaj dara boo xam si moom dara rek xoolal ci xaritam ku nekk war nga mel war nga am xarit boo xamante ni suñ ko gisee rek fàttaliku la maanaam suñ ko gisee dinañ xam ne kii ku baax la suñ ko dinañ fàttaliku danañ la fàttaliku xam ne yow kat ku baax nga parce que ay xarit yu baax ngay àndal nee na walaayatul bim saaxu idaal maxluqiina ngir maane mbindeef yi bi suxtal xaaliqi di merloo aji bind ki mukallaf bi warul saaku ngir maane mbindeef di merloo yàlla mi nga xamante ni moom moo bind mbindeef yi yow ngërmaane ki ngay saaku mbindeef la yow ngay mbindeef ngay saaku ngërmaane kooku di mer loolu yàlla loolu daganul ah, nee na xoola yàlla subhanahu tudnama sallam wa taala te kawe wallahu yàlla wa rasula yenentam ba xaqu ñooy gën a yeeyoo a yarduuhu ñu gërëm loo leen in kaana nañ muminina di way yàlla ak yonent bi ñoom ñoo gën a yeeyoo ñu gë gërëmloo leen fekkee nekk nañ da gëm loolu kenn la damir kenn la waaye nag loolu dañuy xam ne lu gëmloo yàlla lu gërëmloo yàlla moom moo gërëmloo yonent bi moo tax bu ñëwee damir kenn la dañu xam ne yàlla ak yonent bi dañ bëgg a wax waaw kenn warul gërëmloo kenn di merloo sa borom loolu ko tam luy war a gëm mooy gërëmloo yàlla ak yeneen fi waxoola wax naa lay ci moom asalaatu xewal wasalaatu ak mutu laa toata déedéet topp li maxluqin ñeel ndef bi fi masatil xaaliqi di mooy aj bind ki kenn waru topp benn mbindeef waaw bay mooy ki nga xamante ne moom mooy borom mbindeef yi misaal mooy lan yow daal li sa problème moom mooy da ngay liggéey waaye nag sa sa liggéey bi ngay liggéey ki la yilif moom ngay da ngay saaku ngir maanante da ngay saaku saaku ngir maanam waaye nag doo di merloo yàlla ma yow da ngay liggéey moom sax ba waxtu julli jot nga war ko bàyyi dem def ko te doo ko def kooku noonu kooku kooku noonu waaw yaa ngi yaa ngi koy yaa gërëmloo di merloo yàlla kooku looy def ak moom mooy su fekkee ne yow bi ngay liggéey waaw su fekkee ne moom moo teree dem soo soo baa looy def mooy su fekkee ne kooku noonu soo ko bàyyi am nga feneen fooy mën a liggéey da nga koy bàyyi nga dem liggéey feneen su fekkee ne yow la neex nag waaw yaa ngi ci lu xaraam saa yu waxtu julli jotee na nga war a dagg liggéey boobu noonu nga doon nga doon def dem julli te ñëwaat nga xam ne julli yàggul lu mu yàgg-yàggu du weesu cinq minutes six minutes genre yooyu noonu du ko weesu neen walaa dagan la xoo ñeel mukallaf an muy def faylan jëf xataa yalam batam mu xam allah xataa yalam xataa yalam batam mu xam xukuma la yàlla fii ci moom daganul ci mukallaf muy def benn jëf lu may mu xam lu ci yàlla santaane mu ne waaye salu muy laaj al ulama borom xam-xam yi waqtadi muy roy bil muttabiina ci way topp yi sunan muhammad ci suna yonent bi sallallahu alayhi wa nee na su fekkee ne wax nañ wax nañ ko si naaw ne nee na warul mu kalafe warul def benn jëf lu may xam na li si yàlla santaane mu soo ko def nee na te loolu su ko bëggee lan lay def mooy mu laaj boroom xam-xam yi su ko borom xam-xam yi waxalee nag nga xam ne moom su ko borom xam yi waxalee mu def suñ ko aayee mu bàyyi su ne ba nga xam ne wax nañ ko ba sonn waaye xel bi mënut jàpp sooba ba da leen ni ne salal ulamaa wa xaalatil hukamaa wa sabil kubara dañoo ne sooy laaj na laaj boroom xam-xam yi nee na sooy jaxasoo na nga jaxasoo ak borom xikma yi ñoom ñoo jar jaxasoo sooy àndal nga xam ànd nee na nee na sooy àndal nag na nga àndal ak ñi nga xamante ni nee na àndal nag da àndal ñi nga xamante ni ñoom ñooy mag ñi nga ànd ak ñooñu nee na allazi gaa yi nga xamante ne dañ tegtal wextadi muy roy bil muttabiina ci way topp sunan muhammad ci suna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yàlla mu kaw mi doole xéewal te musal ko su laajee borom xam ñu waxal ko na nga xam ne mënul jëf maanaam maanaam moom suñ ko waxalee tey sax bu subaa bu fàtte ko subaa la ko moom may bu doon topp ci gannaaw borom xam-xam yi luñ topp mu dem roy leen soobaa lu ndaxte moom suñ ko waxee du jàpp te su teexale ak ñooñu demee dina fàtte dootul mën a je soobaa day day topp ñooñu nee na al nee al ma gaa yi nga xamante ni yadullu leen tegtal ala taatillahi ci topp yàlla wa xasira ñuy muytun ko bitti baaxi cheytaani ci topp cheytaani ñoom ñooy ñoom ñooy ñan xamante ni dañ lay toppal dañ dañ lay tegtal nan ngay def nan nan ngay def ba topp yàlla jila la di nu moytu nuguloo nan ngay def ba moytu eh, topp seytaane ñoom ñooy ñan ñooy borom xam-xam yi ñoom soo leen toppee si ngay mën a soo ñoom soo leen toppee di nga mën a topp yàlla topp yàlla bu baax suñu la aayee nga xam ne lii moom mooy yoonu seytaane nga xam ne suñu waxee rek suñu waxee lu mu lay fàttali moom mooy diine suñu jëfee mu fàttali la diine waaw ñu ñooy borom xam yi te ñooñu suñu aayee rek nga xam ne diine aaye na ko nee na wala yardoo bum gërëm nafsi ñalpam mbaa nga xamante ni radiohu gërëmoon na ko muflisuuna way felesi mu kallaf mu kallaf bi war gëm li nga xamante ni way feles yi gëmoon nañ ko way feles ñan ma ñi nga xamante ni ñoom danañ matal seen diggante ak seen borom waaye seen diggante nit ñi dañ ko matal ñoom seen julli dinañ ko julli ba mat sëkk asaka yi dinañ ko joxe lépp dinañ ko def waaye nag seen diggante nit ñi day ñaaw saa su nekk loolu ku koy def nag loolu ku koy def yow loolu képp ku koy def yow doo mën a dugg àjjana ndax yow mënoo fi nekk ak nit ñi jëflante ak ñoom jëflante mu ñaaw naan da ngay defar sa diggante ak yàlla muy baax loolu mu mu nekk mooy alal mooy gaa yi nga xamante ni don at sànq nañu amaaroom seen dund fi xëy tooxatin lay ci du topp yàlla taala na uh, nga xamante ñoom dañoo sànq seen dund bi yëpp ndaxte ñoom defar nañ seen diggante ak yàlla waaye seen diggante ak mbindeef yi defaruñ ci dara te loolu koy def yow loolu mënoo si jugee ajana ndaxte bu yow mën a fay la fayee lim lim ba pare lim la fay noonu ngay jël fayaatee ko ñeneen ndaxte yow àq yi nga yoroon ci mbindeef yi dafa bëri dina fa yaa xasratuhum war naa seen perte seen perte waaye tuula bukaayihim war seen jooy seen kaatula bukka ayum wanaa seen yàgg ak jooy ñooñu xamal na ñooñu ñu nar a perte lañ yoomal xiyaama te ñu nar jooy lañ ci yoomal xiyaama ndaxte dinañ joxe li am yépp ci tiyaaba dinañ ko fay abor yoomal xiyaama ci bis penc na salul ñu ngi ñaan allahu yàlla subhanahu turnama sallam ayo fiqnaa mu dëpp lañu litibaayi sunna ni muhammad litibaayi sunna ni topp sunna nabiyina tey suñ yenentu ñu ñaan yàlla mi nga xamante ni ñu ñaan yàlla mu dëppale ñu maanaam mu teg ñu defal ñu suñ sunay yenentu nga xam ne duñ ci mën a mooy dara nga xam ne saa suñ saa suñ defee rek mu saa suñ defee def doon def boobu noonu ñuy def du génn ci diine bi nga xamante ni bu may suñ yenentu indi ba chafee naa ak suñu ràmm yeneen ci dinañu ràmmoo bis yoomal xiyaam moom mooy chafaatul kubra ba ñu wax noonu yonent bi dina ko def yonent bi ñëpp dinañ taxaw taxawaay bu yàgg mu ñoo ràmm ñëpp ba yàlla isaab leen nee na muhammadun muhammad nee na muhammadun muhammad sala yàlla dolli xewal alay ci moom wasallama dolli ko musal kooku nag moom mooy kan kooku moom mooy muhammad kooku nag moom kooku noonu diñu ràmm eh, ci bis yowmal xiyaam safaatul kubra boobu noonu kooku mooy muhammad yàlla ko yàlla mu xawe bi dolli xewal te musal ko darse ñaareel bi foofu noonu lañ koy yemale wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu